loolu daa war a leer 83 ñoo lemi seen enveloppe maa la wax loolu kon nag sa élection d'être président de l'Assemblée c'est très légitime et nit da ngay am cohérence président boo xam ne ne boo yégee fii ci hémicycle bi doo tudd turam doo ko nuy bu ñëwee doo jóg bu convoqué waroo ñëw man loolu laa comprendre di nuy monsieur le ministre Samba si di nuy monsieur ministre te sama xarit la nag xam man dama ñeme assumer la responsabilité des relations Abdoulaye Seydou Sow lu tax ma bëgg la danga am autorité man duma xalamal kenn pour mu jàppale ma si dara ndax suñu borom mii di joxe bàyyiwu ma mais li tax ma bëgg ci yow liggéeykat nga foo mu son bàyyi nga fa empreinte Abdoulaye Sow bis bi ngay jógee kudd ñu lay nomee ministre premier fois dans l'histoire de université Cheikh Anta Diop étudiants yi jóg taxaw manifester waroo dem directeur ba fa mosoon jaar rek DG suy dem dañuy gaaw gunge la nga dem mais c'est pas votre genre loolu nag liggéey boo liggéeyal sa bopp la te lépp lu la Macky Sall mos a dégg ko ak dara lu dul mbiru askan bi la sa sa budget bu ñu la xamoon ni nga bëggee réew mi bëgg Sénégal débat sax du ci am wala ñu bañ déposé ay doléances ce ministère important là ñu jox ko koo xam ne il dans le monde rural lu am solo la mais dégg naa fi ay kàddu ñuy wax ay waxu suuf Ousmane Suite Ousmane Suite laa koy tuddee. Ousmane Suite laa ko tuddee maa ko tuddee Ousmane Suite ndax ñun ñaa ngi dem ay Suite ak feneen mais weejul génnul si biti mais moom ay mbiram nag yàlla li mu doon ñaan sutura yàlla suturaalu ko Ousmane Suite laa wax 4407 ci titre foncier boobu de l'aéroport lim ci dox xam nañ te tamit yéen sa kàddu yëpp nga bëgg koo def rek ay feni feni kese toog fii bi mu fi nekkee député ñu ne on a remis aux députés dix millions rien que pour manipuler opinion c'est extrêmement grave ma mane mane ne ma mi man li may wax mane ne de mentir vis-à-vis de l'opinion koo xam ne ne ay fen ay wax loo xam ne du dëgg nga fi nekkee ma ne maa ngi remercier waa maatam ñu ngi doo a xam ci li nga xam ne ne liggéey bi nga xam ne ne ci wàllu politique ci ministère de logement bi mu ñëwee UCG cadre de vie ak li nga xam ne ne directeur général de urbanisme tabax ay mosquée ba fii ci biir Agnam Siol musuñ koo gis musuñ koo sentir kon nag ce ministère important la man li ma doon ñaan du budget bi nga indi nii ñu voté ko nañ ko doubler tripler pour l'intérêt de Sénégalais ma ne banndiraaɓe geɗel gootel tan mbiyan maami heen Ablaye Saydou Sow geɗel gootel mbiyan maami Ablaye Saydou Sow wallu min tan caggal golle ICG liggéey ICG bu set liggéey cadre de vie bu set di liggéey bi nga xam ne ne aussi li nga dénkoon Omar Sow di directeur général bu urbanisme la grande mosquée de Agnam Siwol est en cours de construction léegi yëf yi jeex mais lenn rek laa lay ñaan mbattaahen hakkille to bange cité religieux ji ɗi amin jiɗi les halif généraux teddine kono hamin jiɗi seeremɓe amen comme no ceerno aliou thiam wourossogui en ceerno samas en ceerno boynaji en ceerno abdoulahi dieng sadel en ceerno Modou Lamine ɗi dumga en ceerno tillere guijolon en ceerno dawdo sako en ceerno modi ɓoki diaw en faamide ceerno ama keɓe mbolel en ceerno abdoul gadiri cillon en famille sérifaɓeɓe foof ceerno ma jakate agnam siwol en ceerno bohar alpha hoore fonde ceerno amadou daabi en mbatte e cité religieux ɗi ɗum yo watte hakkille par ce que ko intérêt population sérén ɓe mbawa hen yiiɗi koye muɗumen waaw heddi ko noon suite bote ousmane Merci, chers collègues. Chers collègues, chers collègues, en vertu de l'article 63 alinéa 1, je propose une de séance de pour permettre au président de groupe une concertation. parce que ñun dañu jàpp ne euh, budget yu ñu présenté gisuñu ci budget yooyu sincérité donc ba tax na euh, mënuñu voter budget bi parce que voter budget bi mooy ànd nañu ak ñoom li ñu wax te ñun jàpp nañ ne budget bi sincère dès lors waruñu mën a voter budget boobu looloo tax voter ñu budget tout la preuve d'ailleurs ci prise de parole yi bu ñu defee lu baax mais dañ koy wax ñun Sénégal lañ fi nekkal nekkal ñu fi keneen ku dul Sénégal bu ñu defee lu baax ñu wax ne lu ñu def lu baax na mais bu ñu proposé budget boo xam ne aussi sincèreul mais on ne peut pas faire autrement duñ ko voté. nga si waaw euh, ñun suñu département euh, bu ñuy waxal yàlla vraiment euh, département la boo xam ne lépp urgence la foofu domaine boo laal secteur boo laal urgence la. mais en fonction maintenant ministère yuy jàll kenn ku ci nekk ci sa domaine ñu xool seppi ci loo xam ne yow yaa ko yellool ñu tegal la ko ci taable bi ne la lii mooy suñu problème au niveau du département de Sédhiou donc euh, loolu mooy suñu taxawaay ci assemblée. yow euh, waaw loolu moom yaakaar naa defoon na fi euh, benn buum ci période installation bi mais comme li ma waxoon rek. Euh, euh, Sénégal mooy réew moo xam ne euh, nit ñi dañuy wax ci lu ñu xamut képp ku yaakaar ne lii man maa ko def mais da ngay da ngay da da ngay nax sa bopp man lii judduwaale la je suis naturellement comme sa et de ku ko gis amaana nga am beneen gisin mais boo jegee nga xam ne lii du lu ñu def mais c'est naturel voilà donc c'est ça mën naa am Sénégal 7 am nga WhatsApp waaw honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly vice président liberté démocrate du changement tey wata nañ bis ministère de urbanisme de logement ku ne xam comme ñeenti waxtu yoo xam ne na askan wi mais li si yëpp mooy problème mu logement xam nga ku ne xam ne na ñoom benn projet de logement boo xam ne cent mille logement la mais gis na ni avancé wul loolu nag bokk na si li jaaxal ñëpp leen li maanaam wax na ko problème mooy am na si pour ñin ko doon jox nga xamante ne dañoo nekk ay sénégalais nga xamante ay par ay ay ay ay entreprise sénégalais lan bu leen ko joxee engagement yi si war a am